boo demee ba gis ne lii nii jëmul kër war ngaa am sañ-sañu ni ko sa euh, jàmbaarte ak sa bëgg liggéey moo tax ma teg la fii mais liggéey bi avancé wul parce que dañuy nekk di wax liggéey ku wax liggéey wax objectif ku wax euh, pays wax développer ou ne pas développer parce que nekk ñu di dund ci àdduna pour lu neex waaye dañu nekk di dund ci àdduna ngir sa famille sax boo ko yoree da bëgg sa njaboot avancé mhm. booy jur ay doom am na loo ci bëgg mhm. société boo ko jiitee am na loo ci bëgg entreprise boo ko jiitee am na loo ci bëgg te pour loolu yëpp objectif yooyu yëpp ku ci nekk mën ko atteindre il faut que bu dee gardiennage nga bëgg nga jël koo xamante ni leer na la ne am na profilu gardiennage doo jël sa cousin teg ko fa muy nelaw pour heure bu ñu ñëwee ñu ne sa cousin mi ngi fi ah. di nga am ngërëmal nit ñi mais buñ la sàccee tamit mën nañ ne yow yaa koy wéetoo juste pour dire rek certes euh, compétence yi baax na diplôme yi baax na mais bu ñu jëloon ku nekk rek la la yellool nga def ko waxuma waxu wërsëg on parle de mérite parce que bu fekkee chance la rek yaakaar naa ne tey bëri na ñoo xamante ni euh, suñu borom euh, leen na leen ay mbir yoo xamante ni wërsëgu xaadim wërsëgu yuusu sa wërsëg ak sama bos yamul mais on parle de mérite et quand on parle de mérite il faut le dire li ñu retardé ba fii ñu toll nii mooy ne dañoo jël ay doomu aadama teg leen foo xamante ni yelloo luñu ko. d' accord Benoît nee dafa bëgg nga wax ko entre compétence ak ki nga xam ne moom moo wóolu ñaar yooyu yan ban nga ci tànn ban nga ci tànn. entre ba compétence ak ki. ak ki nga wóolu. ak ma wóolu. ki am compétence ak ki nga wóolu. ba ki ma wóolu. moom ngay teg moom lay teg. ki am compétence da nga ko écarté. ndax jubul wóolu ma ko. Eh? ki am <laughs> ak ki nga wóolu ki ma wóolu lay jël. waaw waaw bul ñàkk jubloo ak am compétence. ndax lan ndax lan gi. déet. wóolu non mën nga wóolu nit doo te du jub. ah mënoo ah, wóolu ku jubut. ah kay ah kay man ki may wóolu day jub. ah noo xamee ne jub na li la wan da nga xam ci moom. koo xam damaa xam ne jub li da nga xam ci moom. papa léegi la wala. par exemple non non ma laaj leen non non man maay laaj déglu ma déglu ma wax naa leen ñu may ma déglu ma man instant ah, bii. il faut se taire ah, c'est pas votre temps d'antenne monsieur jeune la bëgg a laajee. ki nga xam ne yow yaa ko tànn. waaw ko. waaw su amul expérience ba nga xam ne la nga ko fa tegee mën na koo mottali est-ce que kóolute gi nga ko gi nga ko wóolu noonu dina am njariñ léegi ki nga xam ne. non tontu ma ci li ma dama lay tontu léegi. Mhm. léegi ki nga xam ne moo am expérience bi moom moo mën li nga soxla. Mhm. moom nga xam ne moom nga àndal. doonte konte su ngeen juboo jubul ndax nee na ab ànd waaw ab ànd mhm. yàlla nay ñu juboo te jub. suñu juboo te jubunu. ànd boobu nga juboo day am juboo te jubul ñaar jubo góor gi ak Sofia jubo nañu lool waaye jubunu ah. mën na noo tojum réew de waaw ndax doonu juboo waaye jubunu man ku jub laay wër man ki may wër moom mooy koo xam ne dafa tegu même amul compétence bi donte konte ah yoo tamit ba xanaa seetlu woo bugaan am na benn bis Carlou D moo doon tëgg man yi may seetlu ak yi ngeen seetlu ci kër gi bokkul man déroulement bi ak jeu bi nga xam ne moom la bëggaan di def ci biir entreprise bi ak comment on gère une entreprise man loolu lay topp di ko xool doonoo dem Carlou D di tëgg ba Grand Théâtre ñu toog ba si yàgg am benn tubaab bu ñëw ñu ne kuy wax ak moom ñu ne nanu seeti Pape Dieng ndax Pape Dieng dégg na allemand dégg na anglais dégg na français daf koy làkk bi def na ko sama kanam ñu jël jëli Pape Dieng Pape Dieng di wax ak tubaab bi bi mu waxee tubaab ba pare ma ne waaw lii lan la ñu ne ma kii soo demee ci match yu ngand yi nekk ay NBA kii moo yore seen technique tout ce son tout ce qui est éclairage tout ce tel moom moo ko yor ma ne lu ko buggaan di dee mu ne da koo indi pour dafa am lu muy liggéey si ci kër gi ak yooyu ma ne ko ah kon loolu mënu leen ko mhm. mu ne déedéet mu kii loolu mënuñu ko papis ka moo fa nekkoon ak Bakary Banora ak Fermoz ma ne ko est-ce que xam nga li buggaan def dem jël nit fay ko ay million pour mu ñëw liggéey liggéey boobu war ngeen koo xoola xoola xoola xool ba su ëllëgee su ko buggaan soxlaa du ko jëggaan yi yéen ñi ci kër gi dangeen koy wut ndax indi na ku ko mën pour ngeen xool ko d'accord noonu la ah la dinañ ko xool ah donc koo war a soo dinaa ñëw xaar la mu fa liggéey bëggaan ba sa jëggaani ku koy liggéey bi père daf la ku leen jàngal métier nga wax mooy compétence bi ko xool ak ñu ko d'accord ci yow xapis Youssou xoolal li wax suñu génnee tuuti en entreprise ñëw ci famille bi dañuy xel di dégg Sénégal waajur bu bu bu kontaanul ci doomam ne kii méritowul sax nekk sama doom doom yi tamit di ko wax seeni waajur mu doon loo xam ne rafetluwuñu ko mais day am léegi nag ñu ci ba dañ naan kenn du choisir sa sa yaay kenn du choisir sa papa mais yenn comportement yi day am Sénégal dañ koy gis yenn saa ñu ne diw de nduruwul baayam. waaw nduruwul ndeyam. waaw loo bon euh, xam dama bëgg a benn affaire rek mooy euh, dañu teg benn thème thème buñ ko tegee aussi euh, day baax ñu jéem a xool causes yi xam nga lan moo ko causé indi bon conséquences yi. avantage inconvénient mhm. après jéem a joxe solution parce que du neex aussi. nit ñi duñu seetaan après duñ jàng dara si li ñuy wax donte yàlla moo def ñu nekk fi rek amaana ñi ñuy seetaan ñooñu ëpp. xam na ñëpp xam ko continue mën naa de polémique. boo bëgg la lii nga doon lii nga doon bañ sànq lii la père doon bañ sànq. xam nga lii la père doon bañ sànq mais man moom man moom maa yëngal quoi. du ma la wax dara sama donc man fi may waxee mooy des fois am na yoo xam ni du ay wóolu ñàkk wóolu. gis nga xam-xam loo xam ne ni ab xam-xam lan fa soxla foofu ay wóolu naa nit ki wóolu ma ko amul sens dangay am xam-xam amoo ko warul la fa teg boo amul xam-xam fu ñuy soxla xam-xam ku amul xam-xam bu fa nee ku ne mérité wu ko parce que am na loo xam du ay ay ñoo ñoo yarundoo woolu naa la xam naa ne jum nga et tout jubal kocc ba nga xam ne amoo lenn lu dëng mais fu nu laaj xam-xam njub mënu faa yëkk indi dara conseiller ku jub mën nga koo def sa conseil mu mu lay xelal ci yenn yi mais kanta bu fekkee dafa am benn benn affaire bu ñuy liggéey wala ci yenn entreprise yi pour man foofu bu ñu laajee xam-xam nan ñu am compétence bon côté famille côté famille euh, père s'il vous plaît li ngay bañ rek ngay def côté famille côté famille c'est vrai des fois da am sa doom euh, nga yar ko ni nga ko war a yaree sonn ci lool daj si moom lu nekk mu génn mbedd mi mbedd mi changé ko parce que jamono ji nit ñi dañuy teel a mbedd mi que ça ngay jàng parce que école bi sax léegi mbedd lañ ko def ndax école boo dem am na fuy jaay toog bu buñ génnee récréation genre mbedd lañ koy def donc dangay ngay da ngay da ngay yar sa doom ni nga ko war a yare mhm. après mu génn mel nu ko neex. loolooy indi ñu ne kër gi mën na ko def. Oh, wala loolooy tax mu génne. Eh, ndeyam ci kër gi mën na koo def. mën naa génn ca mbedd ma yàqu fa waaye ndeyam ci kër gi ci biir ay noppam mën na koo topp ba yàq yar bi nga defoon ci moom. su wax yar dafa mel da nga jàpp ne rek bàyyi yar man dama la yar rek apparent de boo doon ndeyam ci kër gi kay dafa mel ni kon ko jigéen benn nekk gi war koo yarle di ko fékk ci kaw baay non dama na la ba li Sophia wax di am ñuy dama dem ba ci biir nit di taxaw naan sama baay nangam su rey jaad jaad woon yow ma rey la yow su ma sañoon doomu jur yow waroo woon danga may déglu a nekk saa yow yaa ma war a déglu maa war a da ngaa xam ne yaa ngi daal man lañ jox man lañ jox par s'il vous plaît père du combat. Ah, non ñëwuñ fi pour daanante loolu parce que mën nga bu ma waxee bu ma waxee yar man bañ naa ko ba waxuma bàyyi waxuma sexe genre bi yar dama na yar rek ay parents donc parents dafay am yaay am na am na baay am na ay maam ñun ñëpp ci parent yi lañ bokk kon man waxuma bu ko kii yaree kee ko yàq dama na la mën nga yar sa doom mën nga yar sa doom si kër mu génn si mbedd mi mel noo xam ne nii yow après da yow da ngay da ngay réccu sax li nga ko doon juree m'excuse du terme mën comme baayam tamit mën na koo yàq yaayam mën na koo yar baayam yàq ko loolu tamit am na sa yaay sa baay mën na laa yar sa maam yàq la loolu ah. tamit am na comprendre nga fi may fi may waxee fi may waxee mooy loolu mooy tax bu génnee ñu changé ko parce que des fois am na ñoo xam ne ñii li may wax rek à chaque fois danoo yemb doo yomb tourner vite fee ci biir ci biir mbedd mi mën nañ am benn comportement boo xam ne bi dana lay gàccal toujours après dañ naan kii de vraiment baayam mérituwul doom ju mel nii. parce que baayam nekkoon na jàmbaar ci dëkk bi do wane na fi wane na fi wane na fi vraiment ak njub lan ko joxoon toppatoo na ko ba baam ba ba muy retraité. kenn déggu ko ci lenn alors que doom ji mu ngi ci ay ti tuuxu duune yu ne donc li may wax rek li ma waxoon sànq mooy thème bi moom moo moom moo moom moo yaatu ba nga xam ne loolu inconvénient bi muy indi nag après day day day tax ba yow ak sa doom yow ak sa doom da ngeen am ay problème am na doom li mu ëmb dafa bari alors Safia man fii xa fi xaafis daanelee foofu laay foofu laay jëlee xaafis du xaafis xaafis fi xaafis <laughs> daanelee foofu laay jëlee alors <laughs> am xaadimu rasul mu ne xa nga ne xam nga xapis lan lay teg bëgguma ko non da nga may déglu bëgguma ma boole nit ñi déglu ma déedéet da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu xam nga xapis lan lay teg dafa nag dafa nag alors man je me dis tout le temps que ni euh, dans le cadre familial Euh, li ñu naan la méritocratie maanaam ñu dem ba wéyjur beddi doom ne ko bëggatuma laa jur mérité woo ma nga fàqi suma géño ca ca satisfaction morale ba la jógee cest doom ji du lu